ay montagne bu doxoon sa diggante ak sa sëriñ da ko war a jéggi. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2021 Touba daara Hizbut Tarqiya moo fas yéene amal ziar bu mag ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Hizbut